rasul ba lay sa duy sëriñ Mbàkke maaram rek ki maam Moor Jaara ma demoon tuuti noog daw meeg as meeg lu lu meeg maayo mbaa konaaki rek inde burteeg montagne seen tak lambar na moo joxoñ sa maam ne ko Abdoulahi Jaara dénk naa la alxuraan sëñ Abi Touré dem na màkkatal mukarram fa tabaarakallaa bërëb bu mu sukk di ñaan wala muy siyaare jox na fa loxo sëñ Ablaye Jaane te fekk sëñ Ablaye Diané sa maam génn Diané bël sëñ Aliou bi mu ñibbisee li mu njëkk a laaj mooy ndax sëñ Ablaye Diané ñëw na ñu ne ko ah sëñ Ablaye Diané demutoon de mu ne déedéet sëñ Ablaye Diané bërëb bu ma sukk di ñaan wala mu lu may nuyu naa ko sëñ Ablaye Diané kon sa maam sëñ Ablaye Diané kenn du moom Masamba Fakujja ak Madul Fakujja ak Balla Fakujja ñoo bokk benn baay maam Maxtaar Ndumbe Jóob ca kokkee seen baay Masamba Faaxu jëm moo jur sëñ kokki njëriñ sa jéey mu jur ndaag ak Mareema ak Xarimaam ak Penda Buya ndaag nag moo jur Masamba gàddu ndaag Masamba gàddu ndaag a jur sëriñ Moor Jàngam ñu jëlamin te ñaan jox ko mu jur ca soxna Loo Jóob ñu jël soxna Loo Jóob jox sëñ Seex Mbàkke Gaynde Faatma mu jur ca sëñ Mbàkke soxna Loo Xarimaam ñu jox ko Ahmadu Ndaag Jaane mu jur ca yaaba xalimaam ñu jël yaaba jox tafsir maxtaar bintaloo mu jur ca soxna mi taloo ñu jëla mi taloo jox xaadim borom jumaa ji mu jur sëñ Moodu Mustafaa sëñ Baara kii mooy réew réew maa ngi réew maa ngi nii su ma téye micro nag ñi laa koy téye ñi ma xam xam nañ loolu waaye moom da da day mos xam mos xam a ngi nii nun ñi koy fréquenté ak bi jaxasoo moom nun noo ko xam